merci monsieur président monsieur président euh, suñu benn collègue dafa dafay xaar banaana ak pom nday rama si soxo mën na toog nee na yow rek lay xaar ci feebaram bi euh, waaw nee na indigoo euh, <laughs> banaana ak pomme monsieur le nday rama dafa daan woon indeegul banaana ak pomme monsieur ministre maa ngi lay nuyu di la ziar la jox sa wàccuwaay suñu suñu suñu doom suñu frère le fils d' Abdoulaye Wade di la félicité ci poste bu bees bi nga xamante ne moom nga yore muy sa cër euh, te yàlla cëral la ko mais aussi nga mérito ko nag parce que yow yow yow constance nga yow tu la constance en personne moi on se connaît depuis combien de temps xam nga wax dëgg yàlla dans le parti nga respecté ma trop di waxtaan waxtaan yu bëri boobu maa ngi Italie nga nekk nit ku baax donc yow loo yor rek sa mérite la ñoo ngi lay félicité di félicité sa équipe yi nga xamante ni yëpp ñoom nga àndal di félicité di nuyu sa nawle ministre yi nga toogal suñu euh, Moustapha Mouhamadou Moustapha Ba ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, docteur Samba si ndax comme li ma koy waxee rek ci yaram la yar ñëpp le ministre Samba Sy dinañ ci ñëw ci kanam monsieur le ministre ma je pense que les indemnités des adjoints au maire bul ko sax caaxaane xam nga lu tax tous les maires n'aspirent pas à être maire. Ils aspirent à être des directeurs généraux, des DG ou des députés. Quand ils sont députés, ils laissent leurs adjoints aux maires dans les mairies qui font tout le job. Eux, ils perçoivent le salaire d'un député, le salaire du DG, les voitures des députés, les voitures des DG et leurs adjoints et maires perçoivent 50 000 francs CFA. Ça, c'est une inégalité à relever. te ñooy def nag liggéey bi yëpp nag monsieur le ministre loolu bokk na ci li nga xamante ne damay wax ne ça devient une nécessité voire même un droit c'est un droit cinquante mille francs CFA nga koy fay adjoint au maire muy def liggéey boobu moo yóbbu signature moo yóbbu parapheur mooy toppatoo mooy dem buñ ngénte monsieur le maire yow loolu relevé ko yow maire nga yàgg nga ci àdduna bi xam nga li xew monsieur le monsieur le ministre maa ngi lay ñaan nga dimbale ma rek nga eggale maire ginnaaw raay maire ginnaaw raay noor baaxul agent yi du ñu fayee ko amuñu ressource gis nga les restes du terre là il faut les affecter et définitivement au maire de Guinaw Rail Nord comme ça au moins mu mun fa xalaat ay projet ñun enclavement bi rey nañu mais aussi vraiment on est très limité je sais que c'est trois minutes et il fallait que je prenne au moins une minute pour parler de vous vous êtes un frère vous êtes mon ami vous êtes un homme bon bon vent monsieur ministre